seetal xasaal yi mi ñuy wax nii mm-hmm. a ah, magam mm-hmm. bi maanaa rakkam kon ala rakkam rakkam waaw xasaal yi rakkam waaw mm-hmm. moom moo dem ba yàlla may ko mu xàmmee benn waay boo xam ne lii mooy meloom mu tarbiyee ci ndeka waaje benn huude boo xam ne mooy huude ca marché ba ah ñu tuddee ko màttakatu der ndeke moom màttakatu der boobu mooy seyxul kaamil bi nga xam ne ku dikk màggale ci yàlla ah rakkam boobu nag ba mu tërbiyaa ba pare ba yàlla jox ko ma xam ab kësu bëgg mën naa mën ngaa taxaw mu xool rek xam li ci yow mu dikk nag fekk xasaale nga jiite mm-hmm. ah mu xool ko ba mu yàgg mu xool ko ni mu xonq ak deret mu ree mm-hmm. bàyyi nekk konti te ñoo bokk yaay mu meer loolu ba mu sëlmalee mu dikk ci seen yaay ne ko yaay wax war nga wax sama sama rakk ji kii li def tey rafetu de mm-hmm. maa ngi jiite muy ree mm-hmm. mu ne ko gannaaw sa rakk la te nga woo ko laaj ko mu woo ko ko waaw lu tax yow bi ma julli ngay ree mu ne ko damaa gis yaa ngi xonq cooy ak deret mm-hmm. mu ne xonq ak deret mu ne ah, moom laa la gisee ci kaw ci suuf yaa ngi xonq ak deret ah, bi may ñaw julli si benn jigéen moo ma laaj reegal nuñ koy àttee nag ma doon xalaat reegal ba xam nga ba kon dere xalaat boobu gis nga gis nga sa xalaat bi loo ci xalaat rek xelee ko na ci dere je xelee ko ci xalaat ba mm-hmm. mu ne haa kon nag lii la sama sama waay gis daal na ko léegi nag yow yow foo jaar ba jot lii <laughs> mu ne ko neexu na xam ne mu ne ko mu ne ko ah, gis nga góor ngay xëw ca roon garab ga ca roon marché ba ca marché ba ci garab ga roon garab ga da jaay koko day fala ko jëlee mu nek ngare mu dem sumi cili sumi kilimaan ga na ñun kilimaan ko nangu ñun sey ko ko morobi ko nangu ñun mu sumi kilimaan ba dem fele dik ci mom ne ko serigne bi man di damaa dikk pour nga dimbali ma ci yalla mu ne ko ah itam imaam man sab xuudi rek la nga dik mu ne ko mané mono ma maa fa nga jaar ak sama rak ja fofu nga jaar ak man da ma du ma dem de da ma jàppale de mu ne ko kon nag lenn ngay def mooy danga nga summi sa kilimaan nga fële xam nga ñëw ci mara marabu sol sa eh, yére yoo xam moo gën a jekk da ngay summi say ga say trois marché teg ko fële sa titre bi nga xam ne imam imam nga teg ko fële dikk toog fii fu ma soxlaa yónni la sama soxla ah mu def loolu ñu ne xay ñu ne si ilimaan bi def na mi ngi toog rek bu xay imam demal defal ma nangam de kay dem kay dem ah yoni demal dox dox nangam mu dox gaw dox dem dik nit ñi xamul li iman dox ben bis mu dik ne ko duus bu day dafa dafa fess mu ne ko demal demal nga widdu ko mu dem wut ci wo wut ci wo gis ko mu dik ne ko ah man de wut na ci boko boo di way mu ne ko yow dal sa sikkim bu rew mi lu ma jëriñ xanaa bu guddi bi kay boko joron lamb sax bu yagge dangaa nga set rek mu daw amul werante mu daw rek di nga maam daanu ci buntu suuf rek foofu la àgg ci yàlla kon nag seetal loolu lu lu xasaw loolu ku ci ku ko ku ci nangoo àgg fii tey ñooñ nangu nañu neex na ñoo xam ne ba mu dikkee nag li tax mu raw rakk ja mm-hmm. rakk ja moom dafa am tarbiya waaye jàngul xasaali nag boo déggee xasaali imaamu xasaali moo am nag téere mu ne fa la ko béeku nag iyaaw ulumu diin mm-hmm. ah léegi nag mu indi ay téere boo xam ne ay walim walim la yoo xam ne kenn xam ñaata waat ñaata walim ci ndax ak xam-xam mu tuur mm-hmm. lii nag lee tax gaa yi naqaree xam nag mm-hmm. ndeke katu der bii mooy seykul murabbi kaamil mm-hmm. ñun dañoo foogoon ne sëriñ si nga xam ne moom la ñuy siyaare yi di màggal di leen fonk di leen siyaare yi mm-hmm. ñoom foogoon nañ ne ñoo yore bagage yi ndekki kii moo yore bagage yi moo tax démb laa la ko wax ci fii bari na koo xam kuñ yaakaar ne mooy falaka folli kooko xamuñ ko sax duñ ko jox weexal moom xam nga loo koy weexalee xam ne soo faloo da nga dimbali diine ji walla diw mii de kon candidat yii de kan kii candidat bi moom moom laa gis ne moom moo gën a jege diine ji mooy gën dimbali diine moom lay fal kenn mënu ci dara ndaxte moom la yàlla teg muy représentant am ku wax rek moo la tax moo tax euh, euh, bi bàyyi bi mu demee kuruma kuruma ba muy seeti bàyyi ca ah Lagos ah ñu ne def ne fay leen làmp ñu ne ko ndax bëggut bëggut bëggut waa booba so tuba bi am ko ki pour bëggut fu dug bu xam mhm. ñu ne ko looy ki mu dik mu ne ko bay man dama bëgg nga ñaanal ma mhm. ma falu ah, ci gox ka kanu mhm. mu ne ko ah fofu nag julli dañ fa bëri mba yow bo jotee li nga yu da ngay mu ne ko bu ko jot dimbali naa dimbali julli kon booba koruma catholique la waaye xam na ne mooy catholique bi nga xam ne moo ak gën a arrangé dina ñëkk boo keneen ko du moom mu jàppale ko mu daal di faru mm-hmm. moo tax lii kon nag ñoom ah bàyyi ne nguur li ko yàq mooy maandu xadi mm-hmm. waaye du ak kiifiir mm-hmm. ñàkk a nekk ne du yàq kon nag gis nga ñoom ni ñu fi ñu fi ñu mën a raay fi ñu mën a kile kon nag loolu la ah ba tax na bokk na ci siru bi nga xam ne buy siru siru li tax Senghor passé affaire bu rëy ci la ca biir ah moo tax gis nga yëpp xam-xam la xamante ni kenn du ko jeexal kon nag lii dañoo dikk ñoom jaxasoo ñi xam ne am wa ahwaalim wa man sax alawam ku leen laaj xanaa xasaal xaal ñu ne waa dikk na quoi man de yow damaa dégg na seekul moro bi nga ma gën a terminé mhm. nafaroo dañ koy dawoo tëral ñu dàq man man waaye bul ma fontoo yow nga gis garaamara buy nekk fii mën nga ana koo gis mu topp ma su ko defee nga ne ko yee sëñ bi nga def ne xasaale defa nga yee sëñ bi loolu du ñu tekkale de xam nga ñoom bagage yàlla lañu yore taa yoo xam ne gis nañ nitu dañuy daal waaye nag fu ñu gis balaa ñu daan nangul dañ lay nagamtalu nagamtalu mooy ñu essayé la ba xam ne liñ lay li bagage yi ngay ut yow mérite nga ko mérite nga bagage yi mu sondage la mm-hmm. bu ñu la defee sondage xam nga loolu mooy baatu tubaab man dama lay wax baatu nga wax baatu tubaab ma wax baatu wolof nagam talu <laughs> ba gars yi ñu ne wolof yi la ci gën <laughs> sondage waaye xam nga damay wax gars yi ne ñun suñ góorgóorluwut ñi jàng tubaab tey bu ñuy jàngalee bu ñuy jàng bu ñuy bu ñuy bu ñuy nekkee de conférence ci arab mm-hmm. baati tubaab yi ñoo gën a baati France bu ñoo gën a baati wolof yi pour wan ne ñoom dégg nañ arab ndax dafa neex ñoom dégg nañ France ndax dafa neex ñoom waaye déedéet suñ ko defee rek baati wolof yi day day day day daal réer su ko defee nag suñ doom yi war a dikk nag xam baati wolof yi ni mu firee ci français ak arabe duñ ko xamati buñ paree ma dégtal la benn waay boo xamante ni alhamdulilah suñu suñu benn waay la bu ñuy déglu ca Koweït nee na oustaz jàng ba licence ba nekk ay docteur mu ne ma boo gisee sa njàng mi am sens ñun xamuñ ci baati wolof baatu arabe bi nañ koy génne ci wolof wolof boobu nga nga xam ne yaa ngi koy génne na nañ ko bëggee moo ñu të jox na dëgg mm-hmm. waaye tey boo nit ñi dañu foog ne sénégalais boo jàngawul te réewu arab yi yow yow amula benn amula benn niveau niveau niveau xam-xam mm-hmm. te willaahi tey ñun ñun ñu ngi ay yore niveau boo xamante ni mm-hmm. man nañ laa may nga jàng université boo dikkee boo dikkee bu ñu la firi nga xam ne dégguloo bokkul puisque yow xamuloon ni mooy tekki suñ doom yi sax xam nga ku mel baa boo ko ne ko ñaar fukk mu ne ñaar fukk nga ne ko wex nga ne <laughs> ah puisque loolu la dikk ah ndaxte ñoom tubaab yi dañoo saay saay nanguñ laa jàngalee baati olof baati france lañ la lañ lay entraîné nga dégg français mhm. duñ waxate yow lu nga xam ne moom nga moom nga dégg mhm. kon nag buñ dikkee ñoom mhm. ah dañ leen di dàq waxala foo ñu ngi loxoom ñeen leen maa ngi doon nekk ñoom nekk fi ñoom min hasal amri mi bir se wa da ngi ngiñal ngiñal nëbb la nag mm-hmm. ndaxte am nga ci droit walaay walaay walaay sawaay man daal li nga xam noonu moom xamu ci dara mm-hmm. ah ah su ko defee boo fekkee ne di koo xam ne yow amuloo ràññee mm-hmm. su la waxee ah kon nag man de man damaa ah man damaa ko foogoon rek daal dem si yoon mu ne waa koy xanaa xamu ne boo bu ñàkkee taalibe ci lay gën a fiix moom ndaxte moom taalibe yu góor bu dikkee daf lay indil xañil sa temps Cheikhu Kaamil dong moo mën a am ku mel ne yonentu yàlla Muhammad ni meloon yàqalu ko yëngalu ko lu saaba yi bari bëri yëngalu ko yow ma teew loolu ku mel ne ahmaditu ahmad mhm. ku mel ne abdul qadir jaay mu mhm. mhm. nag bu fekkee ne sëriñ boo xamante ni yàlla dimbali na nga jàpp ci seyku kaamil ba may la kaamilam nga te nag xamoo xamoo mataayu kaamilam nga bul taxaw moom mën naa dikk moom ah la yëf yi bëri bëri bëri yëpp is yàq saa sidratu maa yàq saa maa saqal basara maa taqa ba mu demee sidratu muntaha tëjël yaar naan tëll tëll tëll tëll tëjël yaar yëngalu ko loolu ñu ngi koy jàngal moom sidratu muntaha boobu nag la ñooy jàngal nag bu ca dikkee moom tëjël li ñuy bëri bëri waaye yoon xàggalo ci sidratu muntaha ah danaa xàggoo ca rek bool taxaw taxawaay ko ak sidratu muntaha mooy seeko kaamil àggoo ca de kon nag looloo tax ñuy lay ne ah man de saa waay daal dimbale ma rek dimbale sa sa yooyu daal demal seeti keneen man bokk ma ci ñu ne ko waaw Cheikh li tax ñooñu da dëkkee ci capital yi da dàq ñi ñëw ci ñoom lu ko waral gis nga se gis nga sëriñ bu mat da koy laaj ruq-ruq su nekk bul ko bàyyi mu ne wal ellatu la tax al yi ji ba tuba war a la ñeel leen li ci loolu li tax ell bi tax ñuy def de dàq nit ñi àndawoo ni mbir mi xat fasada dafa yàqu nisaamul di organisation mbindeef yi dafa yàqoo bi masi atil yi ci coobare xaqu subhaanahu setna wa taala ci coobare yàlla ci la organisation yi mbindeef yàqu organisation bu yàqu nag ah da ngay daw xam nga léegi buñ ne fu euh, football ba jeex na ñu ngay xeex làmb ji toj na dawal boo fa nekkee naan déedéet dañ lay de dañ lay reyal de <laughs> ah loolu nag ci lañ toll léegi léegi nag ah lam ka ba màbb na tribune màbb na ñëpp ngay xeexoo supporters yaa ngay xeexoo bu daal demal ñibbi fële doom aadama yi toll tey làmb ji moo toj ñuy xeexoo ko xaccoo ci àddina ñoom ñu ne kon na man de duma dem ci la duma dem kon nag toog naa fii xanaa ku génnul sa néeg kenn du la fekk xam nga boo déggee ñu ne nañ nañ jàpp bañ coup d'état président bi ñañ jàpp yëpp dañu xóotoon ci président bi ñu boole leen ci ak président ndaxte kii bu ñu ko bàyyee wóoru kii ni mu xiiroon ci président bu ñu ko bàyyi ba tut moo tax ñu nappaale ñu napp ko nappaale gaa yooyu yëpp yow nag fekk yow xamuloo woon sa militant kenn xamuloon yaay kan mm-hmm. yow yaa nga tënul sa ne kenn woon xamu yaay kan kenn dama la fenn xam nga ne moos jàppee ko mos do tok bu ñu diw dañ ko japp ci iya, iya. ah kana gaay ñu di kraw naaw dooma man di ma bootu bootu daañu ma jàpp de <laughs> kon nak loola tax na sabab bi mo tax sabab bobu nak mhm. organisation bi ne yaqku ci mhm. coobare ak nga xam ne moo leen taxawaloon subhaanahu wa taala alati ya xamante la munasa munaasaa amul xaccoo laa ko yalla mi xal xam lu mu def kenn du ko xaccoo mom lu tax nga yàq làmb ji kenn du ko ko walaysa li kulli yi tey jamono bi may xa yow ñeexalul bépp doomu aadama ilaa sa ayamu lu mooy ma ngay dox de toppatoo fi axraat yi ci jamono bi wasaawaati ak neex-neexam tey jamono bii may wax ak yow làmb ji li ko toj yàqu-yàqu bi li ko waral mooy doom aadama yi ku nekk boo xëyee yaa ngay toppatoo loo xam ne mooy sa lu la sa soxlaal ak loo xam ne mooy sa bànneexu bakkan bi ihdaade won nga naa wax na hadrat ilaahi war nga naa peew yàlla ko nak gis nga fini ni bu la nit ñi xamé nit ku baax dañ lay ñaan lo si seen xaaju ba dootu ligéetu yalla buñ yegg na waaj ba mu borom ñaan ko nangula de buñ do ni la wati da ngay dem nak ba legi nga soxla ko nak sen soxla ya mm-hmm. fat soxla yalla motax nit ga gaa nga xamné ñoo mel noonu ñom mm-hmm. dañ na tekk ga dege mom ken xamé wu len mm-hmm. ndax ñu mëna liggéey seen liggéey loolu la kon nag mu ne gannaaw nit ñi dañoo soxloxoo de toppatoo seen aaj ak seen bànneex bakkan ak won gannaaw pays yàlla bi woomaa ak loo xam ne testaxiqoo daf ko yelloo min tawfiitil xuquuq yi pour matal li xam ne mooy war gar ya wal aada bi ak yar ya kenn toppatoo lan mooy xàq pays bi lan mooy yaru pays bi kenn too ko nax la boo demee tey fi ne ci daay ci ci këri këri këri tariqe yëpp tey ñay euh, commission bu yore organisation nangam ko organisation ñii toppatoo xaalis ba ñii toppatoo cotisation ñi ñii toppatoo toppatoo toppatoo liggéey liggéey bi ay commission ay comme ñoo xam topp toppatoo wuy gëm yàlla ya ndax da nga ko fekk ñi nekk ci li pays bi bëgg ndax da gis commission boo xam ne ñi nekk ñi nekk ci pays bi ñi nekk ñi nekk ci pays bi euh, bëgg nañ ko seet ci muqaddam yi ñu indi leen fii ci digg pénc bi ñu ñu sigil leen ndax da ko fa dégg kon nag ñan la ñuy dajale ñañ takkal ma ah, garaatu laal kii mooy koo xam ne lu pays bi soxla ma nga ca kii ci ñi nga xam ne ñooy jaamu pays bi ci lañ bokk ñooñu la takkal ay garaat mm-hmm. kon nag bañ gisee loolu xam ne ñoom mën nañoo bokk ci garaat yooyu mm-hmm. ndax garaat yooyu garaatu xam la mm-hmm. ñu ne nemm ba kenn du xam ne di nañ sax ci gàmmu gi dañ gàmmu ji ba ñibbi duñ xam ne yëg nañ ñu ñëw na ñoom bañ dikkee de gàmmoo si mi ngi mel na ba ngay aji màkk demuloo pour waa màkkaa tax dangaa dem pour ndax ndax yàllaa tax baytulaay ba wa tax dem nga Medina demuloo waa Medina tax de yow dangaa dem bi nga xam ne ki nga xam ne mooy borom ma dina moo tax fii boo fi àggee yow boo demee doo dem toppatoo la gaa yi toppatoo dangay toppatoo ki nga xam ne kenn toppatoo ko nga dem toppatoo ko mooy yàlla ñoom nag nit ñi bañ dikkee dañoo wan gannaaw pays bi fële ah ndaxte tey bari na koo xam ne mi ngi dugg naan sëriñ sëriñ sëriñ daayira daayira bi daayira bi ah léegi nag boo jegee boo jeg ko keesu daayira bi ne ko tungaañ dem doxi say soxla <laughs> ah amul fi aka fi benn dikk ne bëkk néegu sëriñ bi ndekkee bëkk néeg bëkk néeg bi bukki néeg la xam nga bukki moom foofu <laughs> nekk yàpp rek ko fa yóbbu kéro bu gisé saam bu duuf ko toné dem dugal ci mbousam ah sëriñ bi tok ah ñuy laaj ah mom kat moy bok ci koy ulle amna ko jël li sëriñ bi li ñu defoon ci ron ngeenaayam te ya ko jël ci ci ron ngeenaayam kat lool yépp ñun jang nañ ko xam nañ ko entraîné nañ ko dund nañ ko ah ba tax nak <laughs> li ñoy jangale fi bay ñess leen wax ni indi wax Cheikh Tidiane bi uh-huh. xam nga ne wax mi ngi nak gaay gaay na bu len fonne nak mi ngi ni ci pass 140 ci Eh, kaasiful albas bi saa ñi ngi nekkoon nag cent trente ah, ah, bi neuf cent ba ci cent quarante ku ci bëgg a gis wax ji nan lañ koy muccee ak nan la ñuy xamee sëriñ soosu Cheikh Tidiane moom lañ ko laajoon moo ko wax le mi ngi nii nit ñi li tax gaa yi yàlla yi nëbbu nit ñi soxlaatuñ sëriñ ndax yàlla mm-hmm. la tax ñu sëriñ soxlaa sëriñ mooy àddina tax mm-hmm. ñoom nag mënuñoo faale ñu ci àddina yi nit yàlla la ñuy ut te nit yàlla gisatoo ko bëri bëriwut ñoom nag ñu dikk nag war nañ yàlla nga naaw ñàkkee tiggin pay bi xam nga dem ba ci pay yu sa sëriñ mm-hmm. nga fay tëgg ko fecc mm-hmm. ah? ah wane dangal yoo xam ne gis nga man fi ne léegi la ma dem ah, bàyyilu tay ba ñeseen boobu mm-hmm. ay jigéen may romb su ma dina am naqar boo xamante ni tax boo gisee lu bari jigen bo xamne ne nañu buy dem bar ba na solo non la solo dikke ko ci gàmmu dangal bané dang, wo ci de nga mam wénam yu mu ne fàng da nga mam de nga mam moo ci ndiggam mu ni ci biti mu jël nak de nga mam musóoru dal di rastaw ba nga xamanteni ah ma ngay sëg du musóoru dik ci gàmmu gi du mo fess ci màggalee gàmmu ah, ah su ko defé nak ah waaw te su ko defé nak do deg ku wax nek ci do deg ko jël ñaawlu ko doo dégg ko ko aaye doo dégg ku ca wax mukk kon nag lii ñoom nit ñi lañ li tax ñu dikk ci gàmmu gi la xam nga kon ndaw su mel na ko noonu ku dikkul xam nga da ngaa jaay si wane ne man day man day bëgg naa far man de amul borom kër soxla naa nga gis ne waa joo xamante kooku rek lañu ut ah nga gis ñoo xam ne ñu nga taal ca pegg dëkk ba nga de carte seen carte loolu yëpp nag gannaaw moo tax nit ñee def seen yëf yi woon nañ gannaaw yàlla ñoom nit yàlla yi nga xam ne ñoom mënuñoo mënuñoo teqale ko yàlla ñu dem beru fële kenn du leen xàmmeeti ah ndax lan doomu aadama yi wacc nañ pays bi joxatuñ ko ah li nga xam ne mooy gëddam walay si leen amati nekkal lu am fi asal waxtu jamono bi ma wax yow seen li Cheikh Tidiane ma wax la de mu ne xam foo diggee xam mooy ñi xamul li xew li amuñ ci waxtu wi fi saa yi mi ne saa yi ñuy dem lil awliyaay ci wàllu awlu yi xaam yi tey amuñ soxla bu ñuy dem ci dëkk walu yi illaa li axraadin lu mooy ay soxla faasidatun yàqu yuridunaha yoo xam ne ñu ngi koy uuti ca dëkkab sëriñ ba mina tamata eh, mooy ñu bànneexoo gudnaal ci àddina wala saata ak saf-safam ya wa saxawaata ak neex-neexam ya lii dong moo tax ñu ne ñu ngay dem ci gàmmo ya ñu ngay dem ci màggal ya ndax lan man de def naa xay yu rëy ay musiba yu rëy maa ngay dem ndax ndax dëkk sëriñ ba dañ ne boo si demee maa yàlla baal li nga defoon kon maa ngi fay dem war na jaati ak mucc mi nan masaay bi dégg naa boo fa demee musiba yi dañ ciy mucc wala ato bi ak xalaku fiasa daar gis naa dégg naa ne dëkk boobu daal boo fa demee danga nga mucc alaku àdduna maa iqaamati nag la ñuy def def dikk ja màggal ga ma dem ca gàmmo ya dem ca siyaar ya lu ne ñu ko fa alal maa iqaamatim ànd ak ñi nga sax nag wa israarim ñu nga nuur xaalaat dawaax yi loo xam ne daf lay jommale maanaam musiba yi nga xam ne mën naa jox almoolikaat yi nga xam mooy xalaat nit musiba yu bon yi nga xam ne day xalaat nit ña ngi ca sax nag alay saam yi nga xamante ni mooy yu mag ñu ne ko Cheikh mooy yaan mu ne mënel ki mënel kibaar yi mooy bàkkaar yu rëy alfaay si bonte teetal agresseurs yi foo xamante ni Ah, xew-xew yu mag yi am na ci Sénégal agresseurs yi lañ fay rey ñaata nit ñoo fay dagg poosé ñaata ñoo fay dem de def yu bonee ñaata ñoo fay def se bañ ne ko sax dañuy dëkk bu dëkk bu sëslaante fañ koy defee bu dem tëgg fa soirée ah band yëpp dikk foofa su ko defee nag ñoom kon nag lañ dem ne ña fay sàkku ji ak mucc teew ñu nga nuur ci loo xam ne daf leen joomal dañuy alko mel mm-hmm. kibaari alfaysatu ñaaw ëllëg yoo xamante ni laa xoq ba amul mujj li saay bihaa mu jëm ci boromam kon mooy njaalo mooy karta mooy eh, agresseur ku ca sax doo mujj ilaa daaral bawaar yi lu mooy kër xala kookaay ga moo tax nit ñi dañu foog ne xam nga dem nañ ba yaakaar ne boo deexee bu ñu la demee rob rob la foofa rek texe nga waaye gis nga demal Medina Medina ñaata lañ fa rob <laughs> ah Abou Diar fu ñu ko rob makk ndax makka du musle madina musle faas du musle kuy musle mooy borom musal musal kaa xam ne mooy musalkat bi demal fexeel nag muusal xam nga nit ñi duñ muusali xam nga arab daf ne alhuwalu fii tarkil hiyali muus mooy ngay bàyyi muuse bi maanaam maa muus xam nga nit ñi si am na ñoo xam ne dañu fa ne moom muus fekk ñeme yàlla dafa ñeme yàlla ñu ne moo muus déedéet da ngay bàyyi wuta muus boobaa ci ngay muus ah kon nag nit ñi boo ñu bëggee muus nañ bàyyi toppab sëriñ def ak caay-caay ba mu dee ñu ne yóbbu nañ ko kër sëriñ yóbbu nañ ko sëriñ sëriñ ba di kër ak ah daal di génn nag ñu daal ko génn jullee ko tagg ko ñu sang ko ñu sang ko sang ko tagg ko jullee ko suul ko da dem na àjjana ah su ko def <laughs> su ko defee rek gars yi ñu bi ah kii de mbooloo mi ko julee tey sëriñam bi li wax ci moom tey ah kii texe na texe woo de texe woo de nañu waxante dëgg de mi ngi nii de mi ngi nii si xoog tex si àll ba mu ne la all laa xoqubaa li saay bia ilaa daarul bawaar mu jëm nga du nekk fenn lu may kër ak xalaku ka mm-hmm. ah walay salahum duñ xam mm-hmm. ñoom taalibe yi toppee sëriñ si nii xan maydaan bii lef duñ ci am xurujun génn bi maanaa yoon wi ñu jaar du leen génn ci seen mbon wala loxum duñ am firu jox ñu mën a dellu ilal xadra lii ñu def nii manul tax ñu mën a jaar delluwaat ci pay bi yàlla ba maa ngay dem ca dëkk sëriñ bi siyaare waxtu nekk maa ngay dem ba fees xam nga wala nit ñu ne faas ñu ne fees fas au lieu ñu ne face ñu ne fees fees moom boo demee boo tudd ñu fees la gannaaw fay demé yow xal dañ lay fees de ta fes mom moy fes gatt bi <laughs> xam nga <laughs> ngi dem fes man duma dem fes man man kay fas la jëm waaw <laughs> da ta nga xam ni da ngay mbass yalla yalla mbass la te doko yek xam nga fo demone ah man dama demone fes ñom dañ koy waaw dede dem fes duñ ko titro fess mom mi ngi fi ci digg dakaru Fass mi ngi fi ci digg dakaru Cheikh Tidiane mom nekkul fële mi ngi fi bu nekkon fofa kon lu ñu jëriñ mok serigne Cheikh yam mhm. ah man de dama dem man ki xamay siare mom mhm. ah ma nga nekk rek ah and ak mom rek fu meuna nekk nekk fa ak mom koko la gem de waaye li Ibrahima defoon mhm. Ibrahima weer dem ñu nek bàkkañ mu ne soo mu ne mukk man ka yalla la uhibbul afil yalla yu maru du beut <laughs> ci dara wer nak ñu dik mu ah, man nak ay la afil jant ñu naa ah, laaw bil afilin gis nga loolu la melokaan woowu mooy melokaanu malaamiti ya yàlla yooy teqale koot ak yonent booy teqale koot ak sëriñ buy teqale koot bàyyil mu dem bu ëllëgee bu ñu lay jàpp gannaam du la rek réglé kon nag kooka nag boo demee yow nga demee nag nga ne man nag naa koy topp ëllëgee ñu dugal ma nangam Cheikh naa Cheikh Tidiane ma ne foofu loolu gën ci daaru baari nga jëm kër xala ko te lef boobu boo ci amee doo ci génn ci daaru boire yaa ngi yaa ngi ci yoonu yaa ngi seet mi ngi mel naka suu euh, suu teere mooy tinel tinel boo xam ne xam nga tinel boo ci duggee amuloo fooy jaar lu mooy fa tinel ba jëm mooy daaru boire mm-hmm. yoonu daaru boire mm-hmm. moom amul droite gauche yaa ngi juba rek booy dugg rek fa ngay fa ngay àgg rek yaa nga fekk rek géej gaa nga taxaw da ngay surux rek jëm ci biir mooy daaru boire képp koo xam ne yaa ngi topp bakkan nga jaar ci eh, canal ba mu la jaar ba mu la jaar loolu mooy bakkan boo xam ne ba mu lay bàyyi yaa ngi jëm daal boori soo yaakaar ne maa ngay dem nag ca dëkk bu sell ba foofu la wala dëkk yu sell ya dëkk yu sell yi xam nga léegi dëkk yu sell yi moo fi nekk xam nga dem nañ ba am na nañu dëkk yoo xamante ni fa la ah, yomal xiyaam foofu lañ koy taxawalee ba fii ci digg Sénégal ah <laughs> te man nag ah, ah defe naa ne a teere ba ñuy taxawalee euh, yawmal qiyaam moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari suuf yi bu ñu ko defoon muy fukki basan ak ñaar ñeent kon teere baa ko gën a yaatu yow Sénégal suqat si xaw ma nu ñu fiy taxawalee loolu moom waxuma nag benn dëkk nag ci Sénégal nit ñi dañu war a seetlu li ñuy wax waxin yii nañ génn waxin yii nga xam ne nañ jël si bi Cheikh Diagne moo ne waxal lii Cheikh a waxal lii de du Oustaz Guèye لا حق بالي صاحبها إلا دار الباري وليس لهم من هذا الميدان خروج duñ ci génn mukk ci lëf moomu canal booba wala lahum min fi rujuhi ila al xadrati ilahiyati foofu laa taxawoon wóoloo jun duñ ci mën dugg de péeb yàlla ba ku xaw yoon wii te ne man taalibe diw laa déedéet yow koy doo taalibe yow koy taalibe bakkan nga xam nga munaafiqiin yi dañu dikki wax yàlla ne ah li wax day wax wax ji moom tegu na ci yoon waaye nag du dëgg ah ba tey qaalatil aaraabu amanna qul lam tuuminu ah iman xàgg ko ne walakin nag gis nga mm-hmm. dikk ne man ci laa ñu ne ko doogoo ci balaa nga cee bokk dangaa jaar fii mel nii mm-hmm. ah isaa jàkkal munaafiqoon qaalu nashhadu innaka la rasulaay ñu loolu ñëpp la wax ñëpp diñ ne innaka la rasulaay d'accord loolu la Babacar wax waaye nag walaayu yàlla mu innaka la sóor yàlla xam ne dëgg la de waaye nag walaayu yàlla mu innal munaafiqiina la kaasiboon dañuy fende ñu ne wax itaq sa aymaanum junatan an sabiilillaah ba ne naan barke Serigne Diw te dafa làqoo Serigne Diw ba nga yàqal ñoom gaaya ñoom diwin ñoom diwin la ba nga yàqal ne barke Serigne Diw ndax ñoom diwin ca diwab waajo ji lañ diwoo ba ne boo leen waxee waajo rek ñu daal ñu daal di sarax moo tax damay wax man oustaz Gueye sama néeg benn photo sëriñ du ma ko fa wékk gis nga fi ne nii buñ dikkee sa buntu ne gis fii ne fii photo sëriñ baa ngi fi dañ dem kañ kañ ñaay fii kañ kii ñu dem bokk ak mu sëriñ bi dikk nag am melokaan boo xam ne dafay melokaan rafet dikk wax na ne yow yow si yow dañu doon ñun mën mënuñoo dem yow yow ñoo bokk jubluwaay mocc la ba nga dee ñu reen la nga dee dem seen yoon bul ko nangu de bul wane sax ne man man man jullit laa sax buy wane buy wane sax c'est manifeste man musulman musulman jaru manifeste ci ci mbedd mi soo koy def koo xam ne dafa laa xib moo lay dikki rendi la léegi kon nag ñoom ñooñu duñ man a dugg ci fi nga xam ne mooy péw yàlla bi léegi nag nit yàlla yi falama arafa ba xamee alxaarifoona ña xàmme ña maa fil la ca gaañ nga xam ne xam lu xew minasal amri mi mbir ñoom xaarif yi ne ñi nga xam ne ñoo nekk tey xaarif ci jamono bii bañ gisee li nekk ci nit ñi te mooy jikko yu bon yooyu intaje boo lañ fàddu intaje boo lañ làqu intaje boo lañ yiiru xanil xaamati ba ni nga xam ne ñi xamul ña duñ leen mën a xàmme wootara dooxum ñu dàqee leen bi kuli wëccin bépp façon wa bi kuli xaal ak bépp xaal mën nañoo toog sama yàgg ah nga ndikk daal de ràngoo ay sagar ah romb nañu mel na ab dof xam nga dof kenn nit ñi kenn booy wut seen wut dootu dof ah. <laughs> dégg nga eh, defe naa booy bis taami la ah, wala mel na wala kamaa dafa siiw lool siiw lool ba dëkk bu mu wàcc rek ah duñ du am fiix mu bëgg a génn ci loolu nag génn ci bayre bi mu dem nag ah eh, ci Baxdaad Euh, mu dem nag dugg ba xam nga ñun réew réew réew naar yi yooyu jamono dafa am douche euh, place yoo xam ne dañ koy tabax mooy sangookaay yoo xam ne dañ fay def ndox mu tàng bu jamono sedd bu dikkee léegi nag mooy ñu tuddee ay xamaam mm-hmm. léegi nag mu dikk nag benn xamaam dugg ci dugg ci mm-hmm. ne ma ngay sangu dikk nag su mu dikk gis fa yére yoo xam ne yére yu rafet la mm-hmm. ndeke doomi buur bi moo fi duggoon fàtte ko fi mu jël nag sol yéreem eh, jël doomi eh, yére eh, yéreem ya yére yi sol ba pare jël yére yi doomi buur bi teg ci nag génn nag ba ko defee ñu fàttale ko ne ah ah dikk mu yónni dagg yi ñu dikk seet si waaw ana yére yi nga xam ne moom la fi buur bi summi woon doomi buur bi ñu ne kaa ah, nekkul fi ñu naa ah, am na waaye fi dugg de mi nga am mbedd mi ñu topp ko fekk mu nga ko sol ñu jàpp ko pes ko pes ko pes ko summi ko jàpp ko daaj ko ci kaso gi mu ne waaw kay bakkan bi waaw kay nag léegi nag ñu fiix fii nag jaamu suñu borom xaw naa dee ci xaccoo bi <laughs> ah xam nga ne loolu ñun ñi nga xam ne tey sëriñu bakkan fi nekk duñ ko def de balaa ngaa kontaan ñun ceeru bañ ko ceeru tey daje bi bi mu daje tey tey nit ñi dañoo mel ni ñuy bëgg a dee ci sëriñ bi foofa lañuy ñuy foofa la ñuy ne foofa la ñuy dem de kon nag leeta gaa ñoom dañoo làqu ah wan gannaaw xaam yi wa tëradoon bi kulli wëccin wa bi kulli xaalin kon nag nañ e, baaba ñu sansaat foofule e, sawaay ñu ngi ci suñ njàng mii e, kon